voilà muy nii tey nag ñu fas yéene waxtaanee encore beneen thème ba nga xamante ni dina soxal suñu mbokku jigéen ñi thème bi nga xamante ne nag moo nekk ci mu nekk avortement spontané tey si loolu la ñuy waxtaanee euh, olof naan ko ëmb bu tuuru tey si loolu la ñuy fas yéene waxtaanee kon docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal encore une fois si KS TV. Euh, soxna Safiatou maa ngi encore am mbégte ak kontaan di lañ dalal fii nii. Euh, ci maam Abdou hmm, ngir waxtaan ci sujet ba nga xam ni euh, suñu malade yëpp la soxal parce que daanaka mënoo toog bis ci amoo malade boo xam ni dafa ñëw pour affaire avortement. loolu la docteur kon ñu tamit ñu lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di la jox sa wàcc waaye di remercier la encore une fois ci invitation yi ngay accepté parce que xam nañ ñu yombul daal mais comme que ni euh, luy soxal. askan wi moo la ñor donc sensibiliser foog naa ne loolu moom docteur yëpp euh, dañ ciy sawar loolu tax tey nag ñu ngi fii fas yéene waxtaanee comme ni ma ko waxee léegi thème bi di avortement spontané docteur lan mooy avant avortement spontané. waaw avortement mooy ëmb boo xam ne dafay jékki-jékki tuur hmm, comme ni nga ko waxee léegi ëmb bu ndaw lay doon la plupart du temps d'ailleurs moo ci ëpp donc ëmb boo xam ni day dem ba euh, nga tëbal weer war a gis rek gisu nga dem ci station mu defal la test ni la ëmb la. nga jékki-jékki commencé saigner hmm, di gis deret fi ngay euh, war a gisee rey hmm. alors fekk na déjà nga xamoon ni ëmb nga ba pare ndax test ba wala sax fekk na léeg-léeg nga defee ko ba mu leer ni la ëmb la fi mu placé euh, foofu la waroon a placé nga jékki-jékki di gis deret biir bi di metti nga dem di defee ko ñun la ëmb bi tuuru d'accord kon loolu mooy ëmb bu tuuru waaye docteur loolu lan moo koy indi lan moo koy causé en fait ëmb bu tuuru euh, li ci ëpp nag euh, moom mooy euh, loolu la ñuy laaj parce que bu fekkee ëmb moom tuuru na da ngay laaj ah lii lan moo ko lan lan moo ko waral mais jàpp nañ ni booy seet hmm, yàlla moom lu mu def noonu nax moom dama koy faral di wax bu fekkee da nga ëmb mu xool ni ëmb bi dafa am ay formation maanaam ëmb bu bu fekkee continuer na ëmb bi du baax xale bi dafay juddu am ay laago xale bi dafay juddu ay manqué ay cër la mu am ay problème ci ci yeneen ci yeneen partie yaramam loolu ñaare moom mooy tax yàlla teel ko arrêté hmm? donc ay euh, problème la yoo xam ni lépp li nga xam ni baaxul rek dañ koy teel a loolu tax noonu laay defalee sax sama maladie dama naa ne ah comme da nga avorté yàlla moo ko dogaloon parce que lii mu la dénkoon baaxul woon Hmm, looloo tax mu teel koo mu teel koo éliminer sinon causes yi am na yeneen yoo xam ni moom dañuy seetlu ni plus ngay avancer en âge hmm, plus ngay am yenn yenn at yi hmm, euh, ay ñeent fukki jëm kaw lu ci bëri da ngay am euh, chance say ovules yi nga xam ne moom may joxe ovules yi dañoo xaw a màggee tuuti loolu tax bu màggeete nag facilement mu am ay anomalie chromosome yoo xam ni mën a tax ba loolu du baax la ngay la ngay ëmb am na yenn feebar yi tamit yu naan diabète par exemple lu mel ni diabète yenn ay waaw diabète waaw jabet boo xam ne surtout équilibré wul mooy ñi nga xam ne léeg-léeg seen traitement diabète dañ koy xaw a sàggane ba suukar si ba léegi day yéeg ca kaw donc loolu day tax xam nga suukar moom fépp lay nekk ci yaram donc bu fekkee euh, deret yi dafa am tout élevé sucre sucre boo xam ni jabet euh, bi normalul wala traitement bi jaaral yoon donc loolu facilement bu ëmbee ci weer yu njëkk yi mën na yàqu euh, ay affaire genre bolox yooyu par exemple thyroïde lépp lu jëm ci put feebaru put ay hypothyroïde yi même hyperthyroïde yi mën na nekk problème mu problème cause boo xam ni mën na nekk euh, cause cause cause cause euh, fausse couche spontanée moom mooy ëmb bu ndaw bu yàqu sinon yenn malformation utérus parce que utérus bi moom mooy butu njurkaay boo xam ni ci biir lay doom ji di nekk donc bu fekkee par exemple dafa am xee genre fibrome par exemple yenn fibrome yi nga xam ne dafay rëy ba noppi nekk ci biir fi nga xam ne foofu la doom ji nekk mën nañ jàpp ni peut-être ëmb bi mën na am problème hmm? donc ëmb yu gaaw a turu moom mooy euh, du fibrome yëpp gaa parce que mën nga gis koo xam ne dafay may fibrome yu dul jeex mais ëmb ba ëmb bi dem euh, ba jusqu'à terme à 9 yàqu donc euh, xeetu fibrome yi nga xam ni moom lañ naan fibrome su muqueux nga xam ne ci biir bu tuuti rukaay fi doom ji ne nekk foofu lay nekk. donc sinon am na yenn xeetu infection yi xam nga keroog waxoon nañ ko parce que bu fekkee environnement bi nga xam ni dëkkuwaay bi nga xam ni euh, euh, fa la doom ji war a nekk tàgg fa euh, dafa am infection ay doomu jàngoro yu fa nekk donc xel mën naa njort ni ëmb boobu mën naa bañ a yàgg donc am na yeneen xeetu infection yoo xam ni moom ay maladies auto-immunes lañ koy wax sa yaram ci boppam moom mooy xeex doom ji parce que loo xam ne dafa jóge fa la ñëw dugg sa biir yaram donc sa yaram mën na ko bañ a mën na ko bañ mën na ko bañ a nangoogun hmm? am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañ naan la euh, bu fekkee ëmb nga premier ëmb mu yàqu loolu xéewal la parce que daf lay ne pour beneen yoon boo ëmbee mu toog effectivement loolu lañ seetlu dañuy seetlu ñuy premier grossesse yi ñu ci bëri mën na am infection euh, mën a am euh, avortement mais yeneen ëmb yi moom di nga am chance pour ëmb bi nekk normal et tout donc bu fekkee nag ëmb ngay mu yàqu benn yoon nga ëmb ëmbaat mu yàqu ñaari yoon ba ñetti yoon dañu commencé naa lii kat ay avortement à répétition la donc loo pendant ce nag bu boobaa nag la ñu commencé nag xool nan la ñuy def ba taxaw xool lan moo waral loolu mais généralement premier avortement rek mën nañ la defal traitement ba deret yi arrêté ba la nekkoon ci biir nga xam ni baaxul dañ nga xam naa dinañ ci ñëw ci traitement bi ci kanam Euh, bu boobaa nag après ñu defal la waxtaan na la expliquer la expliquer na la loolu daanaka lu normal la sax presque hmm? parce que mën na jàpp ni jigéen ñaari jigéen yu ne kenn ki moom dina am avortement donc mën nañ jàpp ni presque euh, daanaka lu lu normal la parce que loi nature bi la hmm? bu la yàlla dénkee loo xam nii am naay ay anomalie ñaare daf koy faral di arrêté donc ëmb bu tuuru benn yoon ci ñaari ñaari jigéen yu ne danga koy faral di gis donc am nay causes yu bëri yoo xam ne nag ba léegi da ngay seet ba son doo gis cause donc yooyu si mbiru yàlla la donc xam-xam bi foofu la yegg si donc am na foofu la tolloogun hmm, donc am na ay causes yoo xam ni am na mais euh, xam-xamu tubaab gisagu ko médecine gisagu ko mais docteur ba tey ci cause yi parce que parfois damay gis ñu ni euh, boo nekkee en di soog a ëmb nii ñu naan la moytul yu diis yeeg yooyu noonu wala aussi parfois manque d'expérience maanaam xale bu xale buy soog a dugg ci sëy loolu aussi est-ce que bokku si waaw kooku yeneen cause euh, yeneen cause kii la euh, avortement la parce que bu fekkee mais nag surtout du avortement précoce du ëmb bu ndaw ndaw mais surtout ëmb bu xaw a sori lay doon parce que koo xam ne dafay am yenn coono yi par exemple hmm, euh, di liggéey liggéey bu metti ca kër ga hmm, nekk ci kër gu mag Hmm? di liggéey daanaka mbana di togg mbana di dem rundu rooti ah? ba noppi boole ci liggéey di def ay trajet yu sori surtout ci transport en commun yi njange jaay tata yi bus yi xam yooyu coono la rawatina bu ci boolee ay wàccoog yooyu xam nga day dem ba finalement yaram wi man a macha allah dafay nday euh, ndeysaan dafay dafa dafa dafay xaw a dafay xaw a néew doole néew doole jooju nag moom moo tax léeg-léeg euh, facilement la nekk ci biir ba hmm, muy am problème ba du ko mën a téye na mu ko waroon a téye donc loolu aussi yenn cause euh, fausse couche la mais xam naa fausse couche yi nga xam ni dafay gën a avancé la yoo xam ni dem ba ay juróomi weer jàpp juróom benn weer parce que fausse couche bi ñu nee fausse couche rek avortement moom mooy ëmb boo xam ni dafay commencé benn weer ba juróom benn weer yàqu parce que à partir du juróom-ñaari weer dañuy commencé naa ay avortement ay accouchement prématuré la mais nekkatul avortement Ah, donc ñaari euh, trimestre yu njëkk yi c'est-à-dire euh, benn weer ba juróom-benn weer moom bu yàqoo mën nañu wax ni avortement la mais bu weesoo foofu moom accouchement prématuré la hmm, yàlla mën na euh, dogal ëmb yu mel noonu boo wasinee tamit mën na baax juróom-ñaari weer ba juróom-ñeent moom mooy troisième trimestre bi. d'accord docteur kon mbokk internet yi ba tey ñoo ngi seen yéen a ngi seen émission prévention sanitaire ak tey nag ñuy waxtaanee avortement spontané maanaam ëmb bu tuuru dégg bu baax doctor tamit lim si jotoo développé expliqué na lan mooy avortement bi waaye tamit lan moo koy causé euh, le plus souvent euh, waaye docteur euh, avortement bi yan ban âge la gën a sonal wala amul âge ñan ñoo gën a nekk ci ñan ñoo gën a nekk en risque Ah, comme li ma ko waxee sànq rek plus ngay avancer en âge c'est-à-dire plus ngay am euh, ay at yu bëri parce que jigéen dañ naan bu juddoo rek déjà commencé na am ay euh, ovules yoo xam ni dafay nekk ci yaramam ovule bi saa yu génnee rek age ba nga am hmm, moom la ovule bi am donc bu fekkee ba da nga nekk euh, par exemple ku am ñeent fukki at hmm, rek sa borom kër génn benn ovule mën nañu wax ni ovule boobu mën na am ñeent fukki at donc ovule bu xaw a magaale la hmm? donc plus muy magaale nag plus euh, chromosome yi nga xam ni moom moo nekk ci biir waroon ko dëgëralal mën nañ fexe ba nga xam ni euh, bon facilement moo am ay accident yooyu ci chromosome yooyu ko donc facilement donc âge boo xam ni euh, à partir de ces ces tranches dange yooyu 40 jëm kaw facilement mën nga am sinon bon mën nañu wax daal ñëpp âge yëpp daal mën naa am avortement âge mënuñu cibler carrément ni fii la ëppee wala fële la ëppee mais mën nañ jorti ni par exemple à partir de 40 ans jëm kaw euh, non seulement da ngay am euh, difficulté pour am ay grossesse mais aussi da ngay am difficulté pour garder grossesse à partir de la quarantaine 40 ans ñeent fukk jëm kaw foog naa ni explication yi leer na nàññ mbokk internet yi ñu ngi siy bàyyi xel bu baax a baax seen émission prévention sanitaire nag lii la rek indi leen ay thèmes waxtaanee ko pour que ngeen gën a mën a comprendre waaye xam tamit naka ngeen di dundee ak yenn feebar yi loolu foog naa ni am na solo bu baax a baax waaye docteur damay ñëw si mandarga yi sànq doon nga si commencé wax yan mandarga la ñuy xamee ne lii nii ah, ak kii la. waaw yi ci bëri euh, surtout saignement la. ngay jékki-jékki yi mm, seeg sa jëkkër gis saignement wala ñu seet la nga gis saignement nga gis deret wala dara sax nga tëdd rek sa kër hmm, nii di noppalu wala guddi gi hmm, jékki-jékki commencé di gis deret kooku mooy signe ba xam ne moom moo gën a feeñ ci fréquent waaw mooy gën a feeñ c'est le premier signe c'est le plus fréquent aussi ci problème mu problème mu Euh, fausse couche mooy ëmb yu tuuru waaw mën na nekk euh, comme indisposé mais nag da ngay sentir ni dafay am ay douleur ay métit yoo xam ni métit yi dafay comme métitu contraction c'est-à-dire luy mel ni yu weñaaru la c'est-à-dire dafay am ay métit boo xam dafay àndaale métit boo xam ni day métti di dal di métti di dal euh, seetloo sax li ci ëpp genre boobu day ànd ak hmm, deret yi am kayo hmm. c'est-à-dire du mel comme réellement euh, euh, deretu règle dafay am soppeeku ca hmm? ci contexte boo xam ne dafa fekk nga waroon a gis rek gisoo hmm? maanaam nga tëbal 15 jours nga waroon a gis rek teg ca 15 jours gisoo rek kooku loolu lañ naan fausse couche précoce moom mooy avortement boo xam ne moom dafa teel léeg-léeg nag dem nga mën nga dem comme ni ma ko waxee sànq mën nga dem ba def échographie mën nga dem ba jékki-jékki loolu dal la hmm? ci la ñuy euh, def mais bu boobaa xam nga doo yem foofu parce que da nga naan ah dem naa docteur bi seet na ma waaye dama bindal échographie parce que échographie moom mooy permettre ñu xam lan moo nekk ci biir bi ndax li ci nekk ba léegi baax na wala baaxagul léeg-léeg nga am menace menace mooy da ngay gis biir bi di metti euh, nga gis deret boo demee hmm, comme da nga teel a ñëw ci ëmb bi mën nañ ko récupérer loo xam ni euh, mën na bañ a yàqu complètement la euh, ñu gis ni kat am na tuuti lumbu deret bu nekk ci biir rek li ñu naan hématome du studial léeg-léeg échographie bu la ko waxee boo demee docteur bi jox la ay garab wala sage bi jox la ay euh, garab pour méttitu biir ak yooyu mu accompagner la tuuti ay tuuti progestérone ak yooyu ak tuuti fer ak yooyu mën na tax ëmb bi normalaat loolu mooy menace d'avortement hmm? mais menace d'avortement boobu léeg-léeg bu fekkee réellement ëmb bi dafa dafa dafa nar a yàqu ji hmm? parce que am na yoo xam ni même booy traité menace bi fii ak euh, fii ak suba wala fii ak ginnaaw suba tamit bu fekkee ëmb boobu baaxul comme ni ma ko waxoon parce que lu lu war a génn la war a dem la parce que baaxul bu fekkee baaxul nag dangay ngay traité ba sonn hmm, contraction yi di continuer métit bi euh, saignement yi di gën a continuer hmm, boo delluwaatee ci docteur bi mu defal la échographie wala échographie bi station bi def échographie wala docteur bi def échographie bu boobaa day gis ni ah lii yàqu na ay débris doo nga ci des débris yi noonu nag après xam naa dinañ xool nañ la ñuy def pour traitement bi pour mbokk internet yi kon ñii ngi dégg bu baax a baax waaye docteur foog naa ni tamit euh, jigéen ñi nga xamante ni dañuy sàggane li nga xamante ni moo di échographie bi loolu tamit risque la de ko mm-hmm. waaw parce que comme li may faral di wax rek nee naa xaw ban gynécologue de xaw ma ban sage waaye man du ma jox kenn carnet ci xaw ma lan moo ne ci biir bi. Hmm? parce que euh, commencé demal jël carnet visitul et cetera ca xamoo lan moo ne ci biir bi parce que comme ni ma doon waxee sànq pour échographie. mën nga def échographie sax mu woon la ni ëmb la mais ëmb ba fa mu placé nekk euh, baaxul ma nga placé ci ci wet gi c'est-à-dire grossesse extra-utérine mën naa wax ni am na jigéen yu bëri yoo xam ne dañuy ëmb ëmb daw ba noppi faatu ca loolu moo leen di rey parce que fa muy nekk dafay euh, étroit c'est-à-dire dafay tuuti ba nga xam ni ëmb xaju fa ëmb bu war a màgg xaju fa donc il faut mu commencer màgg rek ci trompe boobu muy nekk hmm, dafay éclaté wu Hmm? nga commencé nag di xëpp deret ci sa biir yaram ci sa biir imagineel donc bu fekkee teeluñu xam mën nga faatu donc c'est important saa yoo amee yenn métit yi wala saa yoo amee saignement yi nga fexe ba def échographie ñu xam lan moo ne ci biir donc échographie mën na joxe ëmb bu yàqu mën na la woon ni lii ëmb bu yàqu la échographie mën na la woon ni kii échographie bi euh, ëmb ba fa mu placé mu ngi ca wet gi donc grossesse extra-utérine la grossesse extra-utérine bu fekkee dafa rompre carrément kooku moom la ngay dem ñu gaaw opéré la bu ñu gaawee la dindi trompe ba mu nekk gindi dindaale ëmb ba moom yàlla mën na def nga euh, nga desee nga nga wér hmm? peut-être benn trompe bi benn laaf bi nekk ci wet gi gauche wala droite fa lay fa bu fa nekkee boobu ngay dindi après di nga am beneen chance hmm? am beneen grossesse ci beneen trompe ba donc mën na nekk yeneen genre avortement moom mooy avortement molaire li ñu naan avortement molaire euh, grossesse molaire nan laa ko mën a expliquer mooy au lieu hmm, euh, euh, doom bi di màgg embrion bi di màgg mais plutôt àndaale bi mooy màgg loolu na naan grossesse molaire grossesse molaire dafay am hmm, côté Bawol côté Sine Saalum ak côté yooyu li ñu naan bassin arachidier ci la ëppee ci diiru ñaari at yooyu xam naa ne nañ ci ñëw ci traitement bi. Mm. régulièrement da ngay dem sa docteur mu lay defal ay analyse mm-hmm. parce que ni muy nekkee ci biir. Hmm? Mm-hmm. Euh, bu ci biir kaay ku jigéen ñi noonu lay nekk ci deretam. donc da ngay def ay taux de bêta HCG. mu mm-hmm. muy ferñeent yi yiy firndeel ni ëmb bi yéex hmm? na gaa hmm? mais ba léegi mi ngi continuer nekk ci biir deret yi donc loolu foo nga koy def régulièrement ay analyse Euh, au début weer bu ne lay doon après ñaari weer yu ne juróom-benn weer yu ne ba ñaari at yi mat buñ hmm? ko defee nag ku leer na léegi nekkatul euh, ci ci ci biir euh, biir yaram bi mm-hmm. nekkatul ci biir deret yi après ñu lay doog a bàyyi ngay ëmbaat donc ci biir boobu moom faa nga def planning mm-hmm. hmm? parce que traitement grossesse mu leer moom mënoo ko def ca waxoo planning parce que déjà moom am na lu ñuy faj ba pare du ko doy sëkk donc warul xalaat ëmb donc kooku beneen cause Hmm? Mm-hmm. beneen cause avortement la mm-hmm. hmm? moom mooy grossesse molaire sinon am na yeneen cause aussi yeneen cause euh, yu ñuy wax grossesse arrêtée am na ëmb yoo xam ne yooyu yëkkee yow gisoo deret mm-hmm. biir météo la dara hmm? mais da ngay dem visite rawatina euh, bu fekkee am nga chance euh, de ci visite ci nekkoon wala station boo xam ne am na échographie. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw saa yu demee visite mu teg xoolal la ba xam ndax ëmb baa ngi baax wala déet. mais da rek ñu defal la tegal la sonde échographie bi ñun la ëmb bi dafa arrêté. te yóbbu dara ah loolu maintenant grossesse arrêté loolu aussi am na yeneen cause yu bëri yoo xam ni euh, yàlla mën na fa jaarale euh, yàqee. yàqee mu yàq kii boobu waaw voilà. cause yeneen cause yu kii la euh, avortement précoce. Ah, macha allah docteur Seck dégg ngeen bu baax a baax ci leeral yi foog naa ne moom internet yi ñu ngi si kontaan bu baax a baax waaye docteur dañuy ñëw rek xanaa si traitement bi doon nga ko avancé sànq traitement kii bi avortement. waaw euh, traitement moom xam naa sama jarbaat li a xam mooy curtage. voilà soo <laughs> waxee rek euh, avortement dañ naan waaw mbaa duñ ma curtage <laughs> bon c'est vrai depuis ay quelques année yooyu at yi weesu yëpp daanaka ba léegi sax ñoo si curettage mooy li nga xam ni dañ koy defal sa kanam hmm, pour mucc li nga xam ni moom moo nekk ci biir te baaxatul hmm. hmm. parce que bu ñu nee avortement yaay xëpp deret léeg-léeg sa mën na laa sonal mën na laa loofal bu fekkee fexoo jox ñu lay pexe yoo xam ne dina tax deret yooyu di génn dal parce que léeg-léeg mën naa wax sax avortement ak deret yi muy génn lu mu deret yi ak quantité bi muy génn sax mën na laa rey bu fekkee teeluñu la topp topp ah bon waaw donc avortement lu ñu war a jël en charge précocement lu ñu war a toppatoo ci nu mu gën a gaawee la donc boo demee ñu mel noonu li ñu naan avortement hémorragique moom mooy koo xam ne avorté mais ni muy génnee ni muy xëppee dara dafa de dafa euh, euh, jéggi dayoo kooku da nga koy yóbbu rapidement ci bloc opératoire ba mm. defal ko curetage hm? mm. mais heureusement léegi curetage yi euh, dañ lay defal loo xam ne dañ lay piqué boo xam ne du yëg dara doo ko yëg waaw mm. waaw c'est vrai que curetage daan na mais léegi moom ak euh, anesthésie locorégionale bi ñu lay defal aux alentours du col piqué fu nekk yooyu defal la tuuti silocaïne bu ñu lay piqué bu ñu lay defal aspiration curettage bi mën nga ko sax bañ a yëg bay waxtaan ak sax docteur bi. Hmm? donc xam euh, na tamit ñoo xam ni ñoo ñoom yooyu yëpp supporté wuñu ko donc dañ leen dañ leen nelawal directement. Hmm. bu ñu la nelawal nag dugal la. soit defal la aspiration manuelle intra-utérine c'est-à-dire ak seringue bi ñuy dugal noonu sa carême. Hmm. ak benn kanil bu xam ne bu sew rek boo xam ci buntu njuukaay buntu njuukaay dañ koy jaarale. Mm-hmm. donc dem ci biir buntu njuukaay aspiré li ñuy aspiré parce que débris moom débris bu fa jógee rek ak euh, placenta nga xam ne moo ca des bu fa jógee rek. Mm-hmm. deret di arrêté. donc loolu mooy traitement bu ci gën a urgent ci mm-hmm. traitement fausse couche comme nag spontané rawatina buy sañee. mais euh, am na euh, yeneen xeetu traitement mooy traitement médicamenteux. c'est-à-dire. Euh, depuis quelque temps hmm, euh, li ñu naan misoprostol hmm, mooy ay cytotégua ay kii ak yooyu dañ koy utiliser hmm, ay euh, misoclar ak yooyu dañ koy utiliser nga xam ne bu ñu ko defee sa kanam. bu la ñuy jox la nga def ko si suuf la nañ leneen la nga xam ne moo fa desoon. Mm-hmm. ci ay degré mën na génn nànk-nànk ba jeex. mais yu mel noonu nag bu boobaa dañ lay surveiller xool ba xam parce que diggante bi amoo yenn saignement yu jéggi dayoo mm-hmm. loolu tax. ku ñu koy jox danaan la ah fekkee saignement yi ba léegi nar na jéggi dayoo xëpp deret bi mhm. ñëwaatal parce que ñoo ngi fii waaw saa yoo ñëwee salle d'accouchement di fi fekk sage-femme am na hôpitaux yoo xam ne saa yoo demee di nga ko fekk sa femme di fekk ay gynécologue di nga ñeneen ñoo xam ne dinañ la mën a taxaw boo bu fekkee euh, traitement médicamenteux bu doyul ñu teel la installé defal la curetage parce que curetage curetage moom moo ma gën a gaaw ci traitement bi donc am na ñoo xam ni moom euh, du aaji sax traitement naan la nature fait bien les la nature fait euh, na ñoo xam ne bi ñu commencé saigner rek facilement ñoom seen bopp hmm, seen tujukaay moom mooy puusal li nga xam ne moom moo yàqu ci biir mu génn donc mm. léeg-léeg sax euh, da ngay dem ba presque tuuti débris rek ngay gis ci biir mm. tuuti yàqu-yàqu rek ngay gis ci euh, comme signe ni di dafa amoon avortement donc euh, kooku moom daanaka feer rek nga koy jox ak yenn garab yu sew saxaat yi mu ñibbi donc traitement yooyu ñetti loolu ñett yooyu la mbokk euh, internet yi kon dégg bu baax a baax docteur Seck li mu wax ci traitement bi foog naa ne loolu tamit euh, leer na bu baax a baax waaye docteur temps bi mu ngi <laughs> waaj a jeex xanaa damay ñëw rek nga daal di may baaxee mbokk internet yi conseil yi nga xamante ni suñu mbokk jigéen ñi nañ ko soxla lool lool lool ci bu ñu tollee ci période ëmb. Mm-hmm. waaw période ëmb euh, nee jigéen wérul mm, jigéen mm-hmm. wérul. donc bu fekkee da nga bi dafa xaw dina xaw a loofloo mhm. hmm? mhm. doo mën a lekk dara wala loo lekk wàcc ko hmm? mhm. euh, ngay miir tout le temps da ngay soxla consultation boo xam ne da nga koy teel a def bu boo boo a dem consultation bañ seet la jox la commencé jox la supplémentaire en fer hmm? ay jox la ay sànke nga xam ni déjà yow da loof ba pare jigéen wéeru ba pare donc loolu soxla soxla wootoo leneen loo xam ni euh, da lay a loofal mooy lu mel ni sibru loolu dañu lay supplémenter en di la jox yenn yenn yenn sànq yi. Mhm. Hmm? parce que am na yenn xeetu garab yi ci sibiru bi pour supplément du ñu ko mën a jox tant que amagu ay ñeenti weer. Ah. moom mooy naan expert yooyu. Ah. donc de toute façon ça sage bi dina ci profité wala sa gynécologue teel la mhm. jox ay garab. Hmm? boo xam ne dina dëgëral yaram wi dina dëgëral euh, ëmb bi. Hmm? wax na nag ëmb bi lan lay bañ. booy sëy sa jëkkër ngay def naag parce que bu fekkee ngay foog sa jëkkër moom lu la neex nga def mais bu fekkee da nga am ëmb bu moom euh, voilà foog ngeen def ay relation sexuelle yoo xam ni nànk-nànk rek ngeen di def mm. en attendant ëmb bi gën a taxaw mm. donc sa hygiène de vie hmm, euh, sa alimentation la ngay lekk ak yooyu yëpp hmm, foog mu nekk loo xam ni looy euh, loo xam ne da nga ci mën a jël ay ferñeent yoo xam ne dina la a tabaxal doom bi hmm? dina la man yow sa bopp yaram sa yaram dëgëral ko ba nga xam ne nga a supporter ëmb bi l'a dit ko sànq moom mooy yenn charge yi hmm? yenn yenn yi yu diis yi nga koy transport yi hmm? transport yi yi wala transport en commun yi nga xool nan nga ciy duggee mhm. parce que mënoo nekk ci ay euh, tali yoo xam ne dafa bëri ay euh, ay rëgëj rëgëj. waaw oto yi yëngu rek nekk ci ca ginnaaw. ñaare damay faral damay faral di wax sax boo leen defee transport. dañuy nekk ci kanam. Mm-hmm. parce que foofu lay rëgëj yooyu di xaw a tane wala nga nekk ci digg ba. heure wàcc wala heure xëy nga xam ni dañuy njëkkante eh, mm-hmm. transport yeeg yooyu. Mm-hmm. yooyu yëpp daal foog ñu xool nan lay def ba moytu ko. bu fekkee dem nga ba xalaat ni wan nga lor. wala dem nga ba ba ba def say analyse wala def say école ba mu wan leen ni yow mi kat war ngaa tàmbali visite yi. donc surtout nag euh, def visite yi correctement parce que loolu ci am solo hmm? boo defee visite ñu defal ay analyse nga jëm góorgóorlu def analyse yi parce que analyse yi moom ngay xool ndax ñàkk nga deret wala ñàkkoo deret est-ce que am nga feebar boo xam ne yaa ngi koy wóyaale boo xam ne war nga nañ ko teel a teel a topp topp hmm? rawatina ci ëmb bi nii hmm? euh, mais parce que mën naa jàpp ni ëmb bi dafay révéler yu bëri euh, parce que suñu jigéen ñi daanaka duñ am soxla hôpital tant que ëmbuñu. Hmm? donc ñoom ñooy ëpp chance sax góor ñi parce que mm-hmm. <laughs> góor ñi comme du ñu ëmb. Mm-hmm. donc jigéen ñi saa yu ñu ëmbee donc saa yu ñëwee ñu defal leen analyse et mm-hmm. ñu wax si seen soxla yu bëri dinañ ko ci gis loo xam ni war nañ ko mën a teel a lijjanti ba nga xam ni au moins dinañ mën a mën a à terme seen grossesse. donc maa ngi wax sànq ci traitement grossesse molaire yi. grossesse molaire yi je pense que daanaka wax naa ci. Euh, ce qui est surtout important moom mooy ñuy teel a boo teelee visite mm-hmm. surtout fexe ba def que échographie daf ciy am sens ah, dafay daf daf ciy bi mi ngi nii ci ah. hmm, mais aussi day tax ñu xam yow ñaata weer nga am mm. léeg-léeg nga dem wasin ci doom bu mu mat te doo xam sax ñaata weer oh. sa terme dépassé fa a accoucher dem ba ay 42 semaines d'aménorrhée te doo ko xam tout simplement parce que écho ba nga xam ni moom nga waroon def ci ñetti weer yu njëkk yi da nga d'accord donc franchement euh, maa ngi wax de façon générale ci consultation prénatale yi euh, xaw a génn tout ce sujet euh, avortement spontané mais jàppal ni prise en charge ëmb moom daanaka c'est global moom lépp la lépp la donc c'est important donc ñu bàyyi xel bu ñu toogee war a gis rek gisuñu rek rek ñu teel a mhm. xool ba xam yan mën a conseil lañ mën a jël ci suñu sage-femme wala suñu gynécologue mhm. pour mu jàppale leen am uh, bu ci yàlla àndee ba ëmb yooyu yëpp uh, jaar ba avortement yi ñuy wax noonu. gën a ko éviter. <laughs> Mm-hmm. <laughs> macha allah kon docteur foog naa ni uh, affaire yi leer na li nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee mu di avortement spontané dégg ngeen bu baax docteur Seck lim ci daal di wax. ñu si xel bu baax a baax tamit am na solo ndaxte lépp ngir bëgg ngeen nekk ci dund dund ba nga xamante ni di doo leen am daal benn jafe seen wàllu wér-gu-yaram loolu la rek kon docteur ma lay rek nga daal di tàggatoo. waaw di leen jaajëfal rek saa su ne nee naa keroog yéen ñun ngeen di liggéeyal parce que dañuy nekk suñu bureau à chaque fois malade bu ñëw ñu am lu mhm. donc bu fekkee tàndal ngeen ñu micro tàndal ñu micro nii euh, permettre ñu waxtaan ak askan wi bu ñu fexee am lu dul wax dëgg yàlla gërëm leen sant leen ngeen yàgg fi teew. <laughs> voilà macha allah docteur merci beaucoup di lay jaajëfal bu baax a baax jaajëfal la tamit ci xam-xam bi di la ñaanal rek ni di nga mën a partager xam ni ñëpp daal dinañu ndaxte moom wér moom lu ko waay jëndee foog naa ne jar na ko. <laughs> mu ne ko lu ko waay jëndee jar na ko mbokk yi kon jaajëfal leen bu baax a baax lii lañ leen indiloon tey seen émission prévention sanitaire ñu doon waxtaanee avortement spontané maanaam ëmb bu tuuru dégg ngeen li wax yëpp ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax di leen jox di daje rek. nekk mercredi prochain incha allah jaa ngeen jëf allah.